un, un, un sujet qui qui s'invite euh, dans le débat c'est ce qui se passe à Médina Gounass mm-hmm. euh, le jour de la célébration de de, de l'Aïd mm -hmm. euh, affrontement entre deux deux deux, deux communautés euh, ba mu am nit ku ci ñàkk bakkanam et actuellement la tension est vive mm-hmm. gis naa sax sànq un poste du du du du du président Bissau guinéen mm-hmm. euh, mu naan gars benn communauté bi dañ doon wut renfort en Guinée-Bissau les dispositions ont été prises pour euh, que cela ne se, ne se, ne se, ne fasse pas. Euh, Sénégal on réussi euh, avec brio nos, nos élections mais depuis quelque temps est-ce que amul ñaari euh, fléau yu ñu wala moytu mooy le fléau du conflit communautaire ou, ou du conflit religieux waaw mais loolu la may wax rek mooy euh, li mu am ci jour tabaski ñëpp ñu ngi koy regretter loolu solution bi mooy li arab di wax comme affaire u islam li arab di wax ajar xabla daar war raafi xam la taarix comme séeréer nga sa àll wu sa sa àll wu soriwul <laughs> mooy dañuy wax que. da choisir. sama papa na ma yónnee signification <laughs> bi moom alluwaam sori na. <laughs> waaw maa ngi ciy profité <laughs> maa ngi ciy yàgg nga waxee mbiram maa ngi ciy profité euh, pour pour nuyu ko wax ko aujourd'hui vraiment kontaan na ci moom parce que sa fille est devenue une une fierté si la devenue si sa fille est devenue une fierté c'est grâce à à son enseignement et surtout à son caractère exemplaire <laughs> donc li ñuy wax mooy euh, da ngay choisir dëkkandoo balaa ngay tabax mais booy tukki aussi dangay xool ki ngay àndal loolu tax moo wax ko parce que boo xoolee affaire yu Médina Gounass bu ci entrepreneur identitaire yi génne seen loxo politiciens yi génne ci seen loxo seen loxo solution dina am parce que ay dëkkandoo yu yàgg lañ. mais pourquoi nga naan entrepreneur ak solution ak ak ak politiciens parce que boo xoolee am na depuis deux jours ñuy wax way gaab ay ay gaabunke ay tukula di leen opposé li ñuy wax ci islam kullu muslim ixwaan tous les musulmans sont frères donc li ma dox ñooñ dañoo nekk ay dëkkandoo yu yàgg ba finalement mu nekk ay famille. donc affaire famille la nañ ko jéem a régler dans la famille c'est loolu mooy affaire dëkkandoo bi mooy ay genre xabla daal war raa fi xabla taarix le compagnon avant le voyage pour les musulmans c'est quoi le voyage la seule destination c'est l'islam donc ñoo bokk diine ñoo bokk dëkk donc ñoom problème bu amee ci biir mën nañ ko régler seen biir et je pense que bu ci ñëpp génnee ñoom ci seen bopp dinañ trouver solution parce que islam rëbb na ku yee fitna te Sénégal chance bi ñu am mooy masuñu am problème identitaire masuñu am problème religieux li may wax souvent ñun rek ñoo nekk pays musulman boo xam ni on a eu un président catholique pendant vingt ans le Senghor donc loolu du problème mu Sénégal et je pense que c'est malheureux que mu xew ci affaire tabaski bi bu ñu toogee waxtaan ci seen biir ils von trouver une solution parce que loolu xaju fa ay mbokk lañ ay dëkkandoo lañ xajuñ fa nañ ko leen bàyyi ñoom seen biir ñu waxtaan ñu régler problème bi maintenant état bi li ñu ci mën a wax rek mooy rappeler la neutralité de l'état parce que dans une république laïque l'état nappa de compétence en matière religieuse donc état li mën a def rek mooy stricte neutralité mettre le autour d'une table xool nu ñuy def bañ am kii et c'est pourquoi Ghazali loolu la doon wax nee na Dieu dafa tànn ñaari catégorie nit les prophètes ak les rois cest à ñi nga xam ni ñooy jor diine ji dans ilalaahi ak ñi nga xam ne ñooy problème àdduna bi mais gazal ne la division du travail clair ñi nga xam ni ñooy les politiques l'État leur mission c'est de créer les condition de pratique normal de la religion parce que fitna fu mu am diine kenn du tal dem diine tey jii Sénégal bu amoon guerre civile wala temps nga dégg ay bombe mais kenn du tal dem juma donc le de l'État c'est ça ça veut dire la la paix civile la sécurité voir comment essayer d'arrondir les angles pour que ñoom ci seen bopp kaw ay mbokk lañ ay dëkkandoo lañ ñu trouve une solution et je pense que bu ñu tënkoo ci diine bi rëbb fin na bu ñu tënkoo ci dëkkandoo bu yàgg dinañ trouver une solution mais loolu nag pour ñu egg ci il faut que ñu bañ a politiser bi les rentiers de la tension ak les entrepreneurs ak les entrepreneurs identitaires souvent les entrepreneurs identitaires mooy les politiciens yi xam ni ku nekk da ngay dem bëgg ci benn camp autre chose loolu buñ ñooñu buñ ci génnee rek àla kulli xaalis àla kulli xaalis jàmm